Bulan se prépare. salaamaaleykum euh, monsieur le président euh, maa ngi nuyu ñëpp euh, di nuyu ministre yu fi teew euh, ministère de la de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation euh, gis naa ni tey ñoo ngi ñu soumettre budget bi euh, budget boo xam ne deux cent soixante deux virgule cinq milliards ñaari téeméeri milliards ak juróom-benn fukk ak ñaar ak genn wàll euh, ci budget boobu waxoon naa ko démb monsieur le ministre des finances dama gis ni chaque fois. Euh, le budget bu ngeen jagleel cabinet ministre yi euh, dafay yokk lu bëri bëgg naa laajte lool lu tax euh, parce que des fois da ngay gis direction yi seen budget day stagné même su fekkee ni transfert quand même courant yi gis naa ni yokk na mais bii dañu gis ni cabinet ministre bi budget bi waa ngi jóge ci cent quatre-vingt-sept millions dans la LFI deux mille vingt-deux dam ba ci trois cent cinquante millions donc loolu lu ko waral est-ce que ministre bu bees moo ñëw ak équipe donc euh, ñu buggoon xam rek euh, leneen li ñëpp xam nañ ni dëkk kenn mënu ko développer te euh, ginnaaw xam-xam xam-xam mooy capacité scientifique et technique boo xam ne seen capacité scientifique et technique suffisante et autonome mais dañu gis ni priorité bi joxuñu ko domaine boobu priorité bi joxuñu ko domaine boobu c'est vrai dañu ngi ne budget de solution mais dañu jàpp ni solution yi Euh, maanaam science ak technologie maanaam dafa mel ni boolewuñ ko ci solution yi parce que tey soo xoolee suñu capacité scientifique ak suñu capacité technologique dafa néew parce que tey lépp luy technologie Sénégal da koy importer domaine nu science tamit euh, brevet yu ñuy déposé invention yu ñuy déposé loolu tam dafa néew donc euh, moo tax tey suñu rang ci wàllum indice de développement humain dafa faible parce que même le taux brut de scolarisation dans l'enseignement supérieur tamit dafa nekk loo xam ne dafa néew par rapport ak lu ñu waroon am donc mooy Sénégal actuellement ñu koy fàttaliku rek euh, pour ñëpp xam ko et à la cent soixante dixième place sur cent quatre vingt dix pays dans le monde donc bokk ci ñaar fukki réew yu gën a ndóol ci àddina en termes de développement humain te ñoo ngi woon cent soixante sixième te depuis Macky Sall ñëw en 2012 ñoo ngi ngoole ci classement boobu donc euh, pour que loolu ñu mun ko faj il faut que vraiment ñu jox la priorité à l'enseignement supérieur à la science à la technologie euh, domaine bi secteur bi dama gis ni dafa bëri ay problème euh, performance ak inefficacité lu ci gën a fës mooy chantier yoo xam ne du pare c'est un cimetière de chantier inachevé en retard chantier yi par exemple université Amadou Mahtar Mbow bu ñu ko waroon livrer yàgg na mais gis nañu dil yu si am ak scandale yu si am ak euh, l'actuel président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire Big Togo donc yooyu dafa bëre les noms de Sédhiou monsieur le ministre les noms de Sédhiou kañ lañ koy achevé depuis cinq ans ENO bi moo ngi en chantier foofu entreprise bi kenn gisatu ko entrepreneur bi disparaître na dañu bëgg ñu am délai tey bëgg a xam ENO de Sédhiou kañ lañ koy livrer les populations de Sédhiou vous attendent sur ce dossier sur ce le ministre parce que sonn nañu ci pose première pierre yoo xam ne du yegg mukk sonn nañu ci chantier yoo xam ne du yegg mukk dans la région de Sédhiou donc on veut vraiment rompre avec cette pratique on espère que vous serez l'homme de la solution puisqu'on parle de budget de solution yow déggeeguñ la ci toj-toj yi déggeeguñ la ci 94 milliards dégguñ la ci 45 milliards ak leneen ak leneen donc am nañu yaakaar ci yow ci domaine boobu yàlla buñ la ci dégg euh, lu ma bëggoon euh, mooy vraiment ci wàllum personnel d'enseignement et de recherche bi dafa faible ñoom dama dégg gis ci document deux mille cinq cent vingt neuf ah, est-ce que chiffre boobu chiffre bu wër la wala man maa juum te pratiquement vacataires yi ñu ngi explosé te ñëpp xam nañu situation vacataires yi c'est assez précaire donc il faut que ñu comme collègues yi lu ñu proposé ñu jéem a yokk recrutement yi pour vraiment ñu mën a kii situation boobu fu ñu terminer mooy vraiment proposer ay solution parce que gis nañ dans le domaine de la de la recherche scientifique et technologique amaguñu un centre national de recherche am nañu académie nationale des sciences on s'en félicite mais un centre national de recherche de la science et de la technologie au service du développement ñoo ngi leen di naan nag ngeen jàpp ci liggéey parce que président Macky Sall tey suñu jàppee à partir de tey il lui reste 464 jours pour son second et dernier mandat consécutif je vous remercie Je vous remercie. la parole euh, à notre collègue Abdoulaye Wilane et notre collègue Mohamed Ngom se prépare. ah yow. delloowaateel ma kii bi ah sànq waay sëñ bi waxaguma yàkkamti nga lool voilà mu Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur. le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche euh, et de l'Innovation maa ngi leen di nuyu di nuyu sa naataango yooyu nga dendal te di ci ràññee le ministre des finance et du budget di ko encourager di ko ñaanal yàlla wér euh, di nuyu ministre Samba Sy monsieur le ministre maa ngi bëgg Sénégalais yi seetlu li ma seetlu dafa mel ni l'Assemblée nationale nga xam ne moo war a nekk le lieu par excellence du débat d'idées et du débat en train d'être ravalé tellement des questions, des interventions de très bas étage donnent l'impression que ici, nous restons toujours sur des considérations factuelles. Je voudrais rappeler que depuis 1956, l'Assemblée fonctionne sans interruption. Et je voudrais en toute humilité inviter mes collègues, toutes sensibilités confondues, de rester à la hauteur de nos responsabilités et de nos missions, de ne pas démériter par rapport à nos devanciers. C'est pourquoi je voudrais que nos débats soient davantage assainis et relevés. Sous ce rapport, Monsieur le ministre, Messieurs les ministres, à vous, Monsieur le ministre de l'Enseignement, Monsieur le ministre des Finances, je voudrais demander que vous nous <clears throat> ce qu'il faut retenir en termes d'évolution du budget dévolu aux investissements dans le secteur qui vous concerne, et cela depuis 2012. Le peuple a besoin de savoir, parce qu'il y a un discours de déconstruction axé autour de questions purement politiciennes qui cherchent vraiment à façonner, à formater une opinion publique qu'on veut orienter vers des questions électoralistes. Et on a besoin de savoir, Monsieur le ministre, L'évolution des travaux du centre de formation au sein de l'université Cheikh Ahmadou Bamba. Là aussi, je voudrais que vous reveniez là-dessus avec nous. Nous avons besoin de savoir, c'est extrêmement important, la part de la recherche dans votre département et dans le cadre du budget. Puisque les gens semblent oublier que quand même ce ministère s'appelle ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Enfin, Monsieur le ministre, quel est selon vous l'avenir de l'enseignement supérieur classique dans un contexte où nous avons noté une profusion de plateformes digitales et cela, ce n'est pas seulement un problème spécifique à l'enseignement supérieur, c'est peut-être même propre à tout le système éducatif sénégalais. En attendant vos réponses, Monsieur le ministre, je voudrais aussi vous rappeler que l'UCENS est la première université thématique installée dans un pôle centre qui englobe plusieurs régions. Monsieur le ministre, voudrez-vous revenir sur la spécificité, ce qui distingue l'ICENS de, de, de, toutes les offres en matière de, de politique d'enseignement supérieur dans ce pays et en de l'Ouest Monsieur le ministre, je voterai votre budget parce que je suis convaincu de la pertinence des politiques publiques, parce que je suis convaincu que nous travaillons Nous ne faisons plus du pilotage à vue comme on en a connu dans ce pays. Nous ne faisons plus des offres programmatiques axées sur des questions factuelles. Il y a là, quand on vous entend, quand on lit, ce qui se dit dans votre ministère, une vision vraiment minéraliste. Monsieur le ministre, je voterai votre budget parce que je suis convaincu, avec moi, les populations de Cabrine, que l'ENO de Cabrine, l'ISEP de Cabrine verront le jour. Enfin, monsieur le ministre, M. Gaston Alors, qu'est-ce que vous allez faire avec le ministère du Budget et le ministère de la Fonction publique pour que nous puissions enfin trouver des solutions dans le recrutement des cadres euh, olof nag danaa naan kon kun euh, ndax bu nit ñi déconstruire yow nga ma topp diw fa ngeen jëm moo soriwul bëri na fii ñuy jël kàddu loo li war a jàpp rek ko muñ mooy ne bu njaab yàggee gawar feeñ bu ñu yàgg a débat di dégluwante di waxtaan ci politique publique yi di waxtaan ci li nga xam ne mooy xew ci réew mi bu yàggee nii dinañ xam ñii gàmmu ak ñii ras dem ma bëggoon vraiment joxante respect bu baax a baax a baax dégg naa fi ñuy wax bureau xaalis bu ñu denc ci ay bureau ak ay armoire ah am na loolu nag ku ko xam cim réew na nga caa mos a jaar benn da ngaa xam nganj wala nga mos a suuf su fekkee da mos a dem foofu ñu jox la xaalis waxal. waaye wax ju dëkkul fa mu jëm dëkkul fa mu jëm fa mu jógee la cosaanoo li ci des nag euh, man de Abdoulaye laa tudd Nous vous remercions, chers collègues. La parole est à Mohamedou Ngom et notre collègue Abdou Mbow se prépare.